asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi yi nekk fii ci Italie yéen ñuy déglu rajo defaral suñu bopp seen xarit Baye Diouf moo leen di nuyu ku ci nekk ci sa tour ak ci sa sant di ñëw mbokk yi wax dëgg yàlla ba démb xam ngeen xew-xew bi fi xewoon ci mbirum élection yi te wax dëgg yàlla candidat bi bi gagné. nekk candidat boo xam ne ñun immigré yi dañoo am yaakaar ci parti bi mu bokk ndaxte ñoom ñoo euh, nekk ci gouvernement bi kon nag euh, di santaat yàlla rek mbokk yi ci xew-xewu démb bi euh, moo tax rajo defaral suñu bopp comme ni ma leen ko waxee lépp lu am njëriñ ci suñu nekkuwaay fii dañ ko fase fas di ko def régulièrement <clears throat>

boo xam ne ci réew mi ko jagleel ñi nga eh, ay at loxo jotul sociale ñu eh, di ko wax chaque année day am day yokk at mu nekk day am kastut luñ ci inflation bi eh, prix mu taxit assegno bobu euh ñu ko yok chaque année di wax ne ci 2020 mu ngi tollu ci cinq mille neuf euros virgule soixante dix neuf ci at mi li nit nga pour mën am assegno sociale

mooy cinq mille neuf cent soixante dix sept virgule soixante dix neuf Lolo soo ko euh, euh, divisé par treize mois maanaam muy tredici mensilita mu ngi toll c'est quatre cent cinquante neuf virgule quatre vingt trois maanaam képp ku nekk ci réew mi te nekk mag dinañ wax âge bi nag fi mu tolloo suñ paree ci lii su nekkee ci euh, te gañewul lu ëpp 5977,79 dara am droit ci yeneen conditions yi mi àndal di ko wax am droit pour nguur à travers IMS jàppale ko.

ki ci am droit mooy atam toll na ci 67 ans ba noppi gañewul lu ëpp 5977,79 di wax rek donc ñi ko mun a laajte 67 ans nekk ci réew mi su dee étranger lañ il faut ñu am loolu ñuy wax carte du soggiorno carte du soggiorno il faut mu am ko ñetteeli patch bi moo il faut que mu am résidence résidence bo xam D'agul, ak compte depuis dix ans yi yi muju résidence ab na te dagul ben yoon lolu wax deug yalla moy ñi nga nous ngi 67 ans te seen doole bëriwul ñu pension sociale boo chaque mois IMS daf leen di ko fay te nag casse-tout... warul 459 euros virgule presque 460 euros waru ko gën a néew IMS dina ko mën chaque mois di ko ko jox parce que loolu lañ considéré ne ci réew mi euh, ku fi nekk minimum boobu soo demee ba sa doole motul minimum boobu ba ba say at euh, am fu mu toll minimum boobu dañ la ko war dimbale xanaa rek di wax ne asegno sociale ñu koy ooye si temps pension sociale parce que mbirum retraite la mais nak ñu koy jox ñi nga retraite motul ba mënuñ euh, lu leen nguur à travers IMS ci di aussi ne assegno sociale ku koy étranger am carte de séjour am 67 ans ba nopp am résidence dix ans yoo xam ne daggul benn yoon ku koy fayeku waroo nag xaalis boobu di koy yónnee Sénégal wala di ko yóbbu Sénégal te xaalis boobu soo ko buggee fayeku da ngay toog fii ci réew mi ñu xam ne xaalis bi yaa ngi koy dépensé fii ci réew mi parce que nekkul loo xam ne yow da nga koo cotiser bokkul ak retraite bokkul ak pension moom ndimbal loo xam ne nguur gi da koy def ci ku fi nekk nag ñu teg ci condition yooyu muy 67 ans am carte soggiorno ba noppi nag am résidence ci fukki at yi mujj te daggul euh, benn yoon te xaalis boobu ma baamtuwaat ko nekkul loo xam ne mun nga ko yóbbu bitim réew walla mën nga toog bitim réew ñu la koy fay maanaam ku ko bëgg a feeku da ngay toog fii ci réew mi kon nag mbokk yi lii mooy assegno sociale mu am nag beneen relation maanaam comme dañ ne réew mi képp koo xam ne yaa ngi nekk ci réew mi li nga war gën a euh, li nga xam ne moom nga war gagné minimum li gën a tuuti te nga war koo am ci at mi mooy cinq mille neuf cent soixante dix

ku am permis de soggiorno per lavoro pour liggéey lolu minimum bobu danga ko war gañe képp koo xam jox nañ le permis de séjour pour travail cinq moy le minimum bi nga xam ne danga koy gañe loolu ñu bari dañ ko wara xam parce que nak su fekkee na nga dangay gagner lu touti ñoom dañ naan la réew mi mënoo fee dund kon nag dellu ci sa réew loolu sax lay alkaati yi ci officier immigration yi lañuy faral di wax nit ñi donc di wax rek ne euh, euh, montant boobu mën nga ko booleek sa montant soxna walla sa jëkkër waaye su boobaa day nekk doppio rek manam 11955 lay tollu manam yow su fekkee ne yaa ngi gagné euh, euh, si euh, moins de 5000 euros mais sa jabar wala sa jëkkër gagné na lu ëpp loolu soo ko boo soo boolee revenu famille bi dina nekk loo xam ne mën na la dimbale ci mbirum permis de séjour kon nag ñu jàppaat ko rek mbokk yi di leen wax ne même chose aussi lañ fixé.

Euh, ci Facebook bi ngeen gis ko mu nekk loo xam ne képp koo xam ne yow kenn dong nga lii da nga ko war gagner minimum pour ce permis de séjour saa yooyu renouveler euh, du am benn problème disons suñ ko arrondir rek suñ ko arrondiré rek mooy six mille euros yoo xam ne képp koo xam ne dafa am permis de séjour pour travail ñu koy wax permis de séjour per motivo di lavoro subordinato dafa war a am montant boo xam ne minimum mooy égal ou supérieur ci assegno social ndaxte comme ñoom màgget yi fi nekk te seen doole bëriwul loolu lañ lay dimbalee kon nag dañ ne li ñuy dimbale màgget bi mu mën fee nekk kon nag keneen ku fi bugg a nekk waroo li gën a tuuti loolu pour que ce permis de séjour ñu koy renouveler kon nag mbokk yi li lañ indi won ci leral ci assegno sociale euh, mag mo am 67 ans nek ci réew mi sa doole sa doole bëriwul nga bëgg tok ci réew mi nga ko demander à travers patronat yi ñu demander ko IMS waye nak ngeen japp rek ne il faut nga am carte du soggiorno il faut sa 67 ans mot il faut que aussi nga am résidence si 10 ans yi passé te daggul benn yoon waaye tamit képp kuy renouveler permis de séjour il faut yu tuddee benn nit nga xamal ne lii mooy minimum bi nga xam ne chaque année da nga ko war di wane ne gagné nga ko euh, lu ko may da ngay am problème ak officiaux immigration ni ci sa permis de séjour mbokk yi lii lañ leen indiloon di leen wax ne ci deuxième numéro bi nga xam ne lañ a def. Euh, euh, mooy mbirum euh, yokk busta paaga yi nga xam ne dëkk bi ñu ngi koy waxtaane di ko di gis naa ci ay waxtaan ay question ñu ñëw tamit indi ci leeral lu ñuy wax ku new fiscale mu ànd ak bonus rensi ci deuxième numéro bi moom lañ leen bëgg a ñëw faram fàcceel kon nag mbokk yi lii mooy rajo defaral suñu bopp seen xarit Baye di leen ci nuyu di leen ñaanal jàmm ba beneen yoon jërëjëf